Euh, au niveau de Kaffrine jël nañ acte bi nga xam ne ni moom mooy euh, yóbbu superviseurs yi ci centre yi nga xam ne ni désigné nañ leen ba pare noonu lañ ko fas yéene sayto ak suñuy kilifa mooy gouverneur préfet yi n'est-ce pas force de défense et de sécurité yi mais tam collectivité territoriale yi maire yi ak ak ak président conseil départementaux yi mais aussi et surtout parents d'élèves yi jàngalekat yi ñi nga xam ne nii ñoom ñoom également mënuñoo def dara effectivement saa dinañ continuer inshallah di leen sensibiliser di leen informer n'est-ce pas mais dinañ continuer également rester vigilant rester vigilant parce que contexte hivernage bi également euh, laaj na ñu ñu taxaw bu fekkee ni bu bu bu bu fekkee ni njott nañ fenn foo xamante ni rek dafa nar a am jafe-jafe ñu daal di jël place bi rek daal di koy yóbbu feneen foo xamante ni fa la mbir yi di gën a ñaw Euh, candidat wu kafirini yi ñu ngi toll ci juróom ci baccalauréat ñu ngi toll ci ñetti ñetti junni ak fanweer ak fanweer candidat ñu nar leen répartir ci fukki jury ak euh, benn n'est-ce pas ci biir ci biir euh, ci biir nombre boobu également mu am ci ni xaw am solo la ci ci ci ñi parce que gis fukk ak yi en fait ay